tey dañu daje en tant que conseil municipal di voter li ñuy tuddee le compte administratif gestion deux mille vingt et un muy waxtu am solo boo xamante ne dañu ci wone li nga xamante ne ci wàllu koppar mairie Fatick loolu la liggéeyee ak fu mu ko dugal defe naa ne bu ko présenté conseil voté nañ ko mu gaaw loolu mooy wane rek leeral gi ak transparence bi ak engagement bi nga xamante conseil municipal bi am na ko pour dimbale aussi gunge ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu Fatick loolu moom la ñu def tey li tax defuñu ko woon bële passé nag jafe-jafe nekk fi moo taxoon moo tax ñu reporté ko def ko tey te xam ngeen ne compte de gestion yi voté ko avant le 31 dafa bokk ci critères yi yi tax nga mun a jongante ci PACASEN bi yàlla dogal na li nga xamante ne moo passé Pakassène le Fatick moo jël première commune ci Sénégal moom lañ bëgg a jël jëlaat nañ ko bi yoon te moom lañ bëgg a jëlaat it fi ñu jëm lool nag dafay laaj ni ñu ko encadré ñu koy def waxtu wi ñu ko war a def moo tax dinañu voté compte administratif ci waxtu dina ñu voté li nga xam ne mooy budget ci waxtu ak lépp lu ñu war a taxawee dinañu ko taxawee pour que effectivement Fatick mën a continuer di dox di jël ay place yu am solo ci Pakassène parce que place bi day andi koppar ci commune Fatick te koppar bu ñëw day dellu ci askan waaw xam nga nag mairie du dunde lu dul recouvrement mooy juutu yeeg taxes te loolu bu amul mairie du am lu mu liggéeyee amoon nañ ci jafe-jafe ci at yi passé waaye bañ tegee commission fiscale euh, de de la fiscalité locale yàlla dogal na def nañ ci ay jéego ci ay ñaar fukk ci téeméer bu nekk lañ nekkoon tey ñu ngi ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci taux recouvrement loolu nag liggéey la bu ama am solo bu ñu rafetlu dinañu ko kañ waaye dañuy continuer liggéey parce que tant que recette yaa ngi dugg dinañu mën a woyu ci li nga xam ne mooy mëbatu population